ben financement bo xamantene ministère de la femme moko financer jigenu keur musa moy une valeur de 10 millions euh, financement bi nak suñu maire mo demander woon financement pour les femmes de la commune de keur musa mu jaaré ci monsieur le ministre Mohamed Diallo mi nga xamantene moñu wan yoon bi bañu mëna jot financement bi euh, financement bi euh, financement bi 10 millions la dañ ko war a financer jigéen yi nga xamante ne moo nekk dans la commune de Kër Moussa il y avait de femmes yi nga xamante ne ñoo defoon na euh, demande yi. waaw monsieur le ministre euh, Mouhamed Diallo moo ñu dalaloon këram ñu waxtaan jafe-jafe yi nga xamante ne moo am dans la commune de Kër Moussa mu joxoon ñu ndigal nekk nañu dem bind présidence su ñu bindee présidence ñoom ñu essayé ñu andi ko ci moom moom mu topp dossier bi ñun bu ñu toogee waxtaan ak suñu maire aussi ah maire li ci was mu taxaw ci ñu bind ko yónnee ko yóbbu ko présidence mais aussi ñu delluwaat ci suñu ministre Mouhamed Diallo moom mu téye dossier bi mu suivre ko loolu moo tax financement yi tey suñu ko amee dañ ne yàlla ak Mouhamed Diallo moo ñu wan yoon bi mën koo jot au niveau du ministère de la femme man nag aussi euh, yàlla def dossier bi sama loxo la nekkoon man maa ko doon piloté di aussi waxante waa ministère de la femme donc ba projet bi mu réalisé wu. jigéen yi jigéen yi dama leen naan nañu gën a góorgóorlu nañu gën a góorlu ñu xam ne lii yàgg nañ dans la commune mais mosuñoo am financement boo xamante ne dañ koo booloo ñu jox ko euh, jigéenu Kër Moussa parce que gouvernement gouvernement bu nekk jaar na fi mais tey. ci reñu président Macky Sall lañ ko amee donc jigéen yi ñu ngi yëngu ci wàllum transformation activité bari na dans la commune de Kër Moussa mais jigéen yooyu aussi bu ñu jotee financement bi nañ ñu jàppale ñu Euh, parce que financement bi pas gratuit il dure de deux ans mais sans intérêt wante ministre bi aussi may nañu aussi comme que ñun dañoo am e des femmes unies de la commune de Kër pour ñu xool nan lañ ci mën a tege ba ñu autonomisation L'objectif, c'est que les femmes ñu mën a dem ci autonomisation te autonomisation à partir de ce fonds là ci lañ ko nous a amee ñun dañuy woo jigéen yëpp parce que yàlla dafa def ñun dañoo yaroo ci développement té ku yaroo ci développement xooloo parti donc té président de la république financement yi daf ko jagleel jigéenu commune bi yépp jigéenu commune bi yépp donc jigéen yi nga xam ne am nañu activité déposé woon nañu seen projet incha allah seetuñu parti parce que ñun bu ñu ko doon def xooluñu woon ku bokk ci parti bi ak ku bokk ci parti bële ñëpp nañ ci booloo comme ni ko monsieur le maire waxee ñun ñu bokk liggéey pour dans la commune de Kër Moussa merci